سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki jullit yi ni teewlu bekki taalibe yi noo ngi leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci jataay yi muy jataay yi Minanul Baaxil Xadiim ginnaaw bu nu jotee ndigal ci cheikh Mouhamad bin Muntaqa ibnu cheikh Mouhamad Bachir radiallahu anhu ci jàngale wala leeral bokk tere bii ñu tuddee Minanul Baaxil Xadiim ñu tuddee seen Bachir bi ñu ngi am mbégte di sant suñu borom loolu di ñaan yàlla it mu defal ñu ci tawfiq kon jotaay yi mi ngi tàmbali mm, ci njëlbeenu weeru koor bismillahi rahmaani rahim ani muqaddama njëlbeen kon sëriñ mi ngi tàmbali bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima awnaka ya muinu wa bika nastain ginnaaw bu mu sant yàlla julli ci yonent di wax noo ngi sàkku sa ndimbal yow aji dimbale ji yow képp it ci lañuy sàkku ndimbal di sant yàlla di jël ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musalim wa asalaatu wasalaamu ala xaatimi nabiina wa imam musalim سيدنا محمد بن عبد قال مؤلفه هذا الكتاب المبارك سميته aji taalif bi muy Cheikh Mamadou Bachir wax nañ tari bi bu barkeel bi maa ngi ko tuddee minaan ba xadim te mooy xéewali aji des fii siirati Cheikh Xadim ci doxinu jaar-jaari ak Cheikhul Xadim radiyallahu anhu muy ma maa ngi ko tërali nii muy ab muxaddama la def mooy laltaay ci gudduk eh, gudduk xelum sëriñ bi sëriñ bi xel mu rafet gudd si rafet lay doon mu andi ab muxaddama ci loolu radiyallahu anhu muxaddam boobu nag ba tey mi ngi ci jàngale waale ci biir tut tànku sëriñ bi ak li ko suñu borom mooñaale ci ndaw ak mu tudd ci it nu mu bari woon kersa aku njàmbaareem aku sàmmoonteem aku tabam bu loolu jàllee muy mu xàddam boobu mu teg ci gëstu ci xam-xamu tasawuf ab gëstu boo xamante ne ci xam-xamu tasawuf day aju ginnaaw bu loolu jàllee mu leeral ci maqaamat yaqin yi teg ci juróom-ñeenti e, bunt yi nag maqaamat yaqin yi benn par benn la ko leeral door cee teg nag juróom-ñeenti bunt yoo xamante ne mu ngi ko teg ci kaw maqaamaatu yaqiin yi moo xam juróom-ñeenti maqaama yi mun ndax leeral mbirum sëriñ bi mënti nekk ci lu duggee tudd maqaamaat yooyu ak yi xaal yi ci aju ndax sëriñ bi loolu rek dund yooyu rek noonu yi ci loolu rek la muy maqaamaatu yaqiin bu defee nag lépp lu ma ci bind ci sëriñ bi rek maa ngi koy leeral ci biir maqaamaati yaqin yooyu ginnaaw bu ma defee laltaay bu ndaw ci leer lan mooy maqaama yi ak lan mooy xaal ci ni ko borom xam-xam yi tasawuf yi waxe ma tànn nag toftaleb abu taalib al makki ci nam tërale maqaamaat yi ca xóot ca xóotul xulub noonu laa ko tërale boobu laa tànn ndax téere boobu kat mooy ndey fànnu tasawuf ci téere boobu lañ jëkk leeral tasawuf ci ak yaatal te it téere la boo xamante ni kilifa yi dañ ci daan nit ñi dañ ci daan sukkandiku mel imam xasaali ci la sukkandiku ak ñu ni mel imam xasaali ak ñu ni mel abul xasan ashadali radiallahu wax na ci xóotu xulub ni xóotu xulub di dafay maye ak leer yaa xulumi diin moom xam-xam dafay maye xam-xam loolu mooy abul xasan ashadali moo ko wax poose nag bunt bu njëkk bi ma jàngale ci tuubug sëriñ bi radiallahu anhu nam ko dunde nam dunde ak tawba bunt ñaareel bi muñug sëriñ bi radiallahu anhu ñetteelu bunt bi ma def ko ci cantuk sëriñ bi nu daan sant suñu borom ñeenteelu bunt bi ma def ko ci nu mu yaakaare woon suñu borom wal xaamisu juróomeel bi ma def ko ci ragal yàlla sëriñ bi juróom benneel bi ak dëddum àdduna juróom ñaareel bi ci ak wakkiirloom juróom ñetteel bi ak juróom ñeenteel bi nag la boole def ko ci ngërëm ngërëm loo dogal suñu borom ci li ci dunde woon ak cofeel gi amoon ci borom rafetlu am. boo fee nag lenn ci buntu yooyu nag ci biir buntu yooyu nag am na ci lenn ci ay buntu yoo xam ne dina am ay faslu ak ci li léegi nag bu loolu jàllee ma def benn xaatima mooy tëj ko tëjee téere bi nag seere yi nga xamante ni. nit ñu mag ñooñu mu jamonoonteel nit ñu baax ñooñu moom lañ doon seere ci moom muy ay borom xam-xam muy ay nit yàlla ay ak sëriñ lu yi nag karaama yi moom ci euh, faj ay ràgg ak saafara ay tawat ak soppi ay mbir ak fajuk ay aajo ak ay kushoofaat mu kashfaat yu bari ci lu nëbbu mbir mbir yu nëbba moom mel ni suba ko leeral loolu moom wéetul wutalu ba ko buntu bopp loolu maqaam karaama dal wutalu ba ko buntu bopp ndax kenn mënu ko takk dinaa ci joxe tuuti rek li euh, dimbalee ko kii yër ci bi ngir barkeeloo ko waaye ku ci bëgg ak euh, mat nag lu gën a mat loolu nag na seeti Turi ilan ke suna ana goyi ne kuma shi hu job daga ne عمنا كير متعلم بالمنح المسكية في الخوارق البكية أكشاف مختار بنت اللو ndax téere yi ñu dal tef ni téere ni tef na ay téere yoo xam ne tudd nañ ci karaamay sëriñ bi yu bare bare ndax karaamay kat mënees ko dajal daal maanaam bu fekkoon ni جيجي دفنك ايدا غرب يب دون اي خليل دي تحرك من من بنت لي اجي تي ما كرامه دي خامتو سني دا كون لول موي لسون بو جيك بي ني نيا يارو دفنك دي توبا جيرني ولي كو نوندي تي وفو مقدمه تي وفور حق لشيخنا